xam ne euh, ils sont en prison boo xam ne peut-être mënoon na ñàkk sa s'agit de Abdou Karim Gueye Kouroumha nga xam ne maa ngi koy saluer de passage professeur Cheikh Oumar Diagne aussi di koy jox wàccuwaayam ak ñoom Papito Kara Atoumane Diagne ak la dame Amidia ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne mën nañu wax ne si année 2022 bi aussi euh, si la leen justice euh, sénégalaise tegee loxom mais ñu bëri ñu mel ni comme ay ñoom Papa Sane wala ñi nga xam ne ñooy euh, uyo fii nga xam ne société civile au Sénégal dañoo jàpp ne c'est des détenus euh, politiques tey jii est-ce que aussi euh, ñooñu ñooy les détenus comme rek euh, manifestation bi nga xam ne la société civile euh, organisé woon na ko par rapport ak euh, corruption yi nga xam ne ñu loon ko waxtaanee ak cour de cour des comptes génne ko si rapport force Covid 19 bi ñoom tamit seen ay thème par rapport ak lii bokkoon na ci aussi la libération de ces détenus mu ngi jàll nii sax ci image yi voilà on voit ku mel ni comme Aliou Sané hmm. le coordinateur du mouvement Y'en ak ñeneen ay euh, nit yoo xam ne rek fu mu toll nii ràññeeku woon nañ bu baax si biir euh, société civile ba san nga am si ban lecture par rapport ak euh, voilà ces détenus ak initiative yi nga xam ne les de la société civile ñu ngi koy def aussi. kii njàpp moi moi je je dis malheureusement delluwaat dañuy yóbbuwaat 2011. de 2022. oui oui mais je vous dis dañu yóbbuwaat 2011 ok du temps de maître Abdoulaye Wade. dañu yóbbuwaat 2011 man man bu may xoolaat place de la nation. dama rus wallahi azim dama rus wallahi azim dama rus j'ai honte j'ai honte et mal en même temps parce que <laughs> on se dit mais quel comme que de temps perdu Ndiaye Bitèye en 2011 en 2011 biñ doon nekk fii c'est-à-dire que j'ai l'impression que nit yi ngay dindi rek nga tegaat fa président Macky Sall ñoom Idrissa Seck kilifa yi ñoom ñëpp nga tegaat leen fa nga dindi ñii the same thing. même scénario bi même, même film bi même spectre bi. c'est-à-dire que man je me dis président Macky Sall quand il regarde ça comment il se sent qu'est-ce qu'il se dit. Mm. malheureusement quand on n'a pas sans prétention on nous excusera peut-être qui sait. Mais quand on n'a pas un bon entourage, quand les gens y vont dans le soi-disant et le clair-obscur, mm -hmm. et le va-t-en-guerre, et le rek ngay dëkkee. Ndiaye. Mhm. ce qui s'est passé c'est quoi demaat nañ ba nit ñi di wax wax waxi troisième mandat président Macky Sall moo taxaw xool Sénégal yëpp ne man kenn du ma dégg ci mbirum troisième mandat. Mhm. mais il laisse perdurer le suspense. pourquoi. 31 décembre bi président Macky Sall mënoon na ne je dis à mes partisans. ñu ñu góorgóorlu non non je man je gère pas ton canevas je dis ce que je pense man dama ne. tey jii nii jekkoon na parce que ci contexte bi ñu toll <laughs> président bi ne gars mais écoutez. <laughs> vraiment mais ma def trois points de suspension. wax rek ne wax rek nu wax rek ne. ni euh. xew nii obélisque place de la nation te place boobu. dañuy wax suñu xalaat bu gàtt ne Sénégal malheureusement lépp lu ñu fa xeex duñ ko gagné. mais mais finalement comme ni ngay waxee même scénario même spectre beeg euh, même kii euh, film bi dafa mel ni comme moom lañu ñu tegaat rek mais avec euh, des individus différents wala des acteurs sa politique différents personne finalement est-ce que ñi nga xam ne ñoo nekk société civile bi nga xam ne à chaque fois ñooy accompagner politique yi wala sax di xeex ay combats yoo xam ne dañoo jàpp finalement est-ce qu'il se trompe pas de combat aussi. parce que c'est-à-dire euh, li ñu doon xeex 2011 moom la ñuy xeexaat le troisième mandat euh, corruption ak li nga xam ne euh, mooy cette injustice aussi sociale. mais mais kii Ndiaye Ndiaye buñ la dugalee si dara nan ngay def tout ce qui se passe là. Mhm. c'est parce que on nous a mis dedans société civile keneen ak keneen moi je trouve que sax gars yi dañoo yéex a wax. je trouve que société civile dafa yéex a réagir la société civile devait réagir depuis le parrainage en 2019 mm -hmm. pour dire non parce que parrainage bi baaxut aw bañ na keneen ak keneen baaxut et on a laissé faire Sénégal en 2019 waruñu woon nangu dem élection ak cinq candidats fii la ñu indi waa léegi est-ce que mën nañu dëkkee Sénégal di dundee lu dul yoon parce que am na koo xam ne moom loolu la bëgg looloo ko neex. Mhm. wala am na ñoo xam ne loolu la ñu bëgg looloo la neex. quand des gens de l'APR Benno Bokk Yaakaar mu neex mu naka de façon ñun président Macky Sall mooy suñu candidat te président waxul ne day doon candidat dafa ne nii wii nii non alors que waxoon na avant du ko doon. parce que mhm. waruma ko doon. Mhm. mais kan moo respecté wul yi. na. regarde cette image qu'on a il faut nga won lii internet yi. Mm-hmm. waral xoolal cette image là njàpp. cette image un peuple un but une foi. une foi. sur du marron beige. Mm-hmm. voilà comment on désacralise l'institution. Mm. quand on dit aux gens oui da ngeen war a respecter institution bi dañoo war a respecter institution bi oui mais à commencer par ñi kaa incarné fan la ñu teg jël suñu drapeau teg ko ci wet jël marron beige teg ko en fond. Mm. foofu la ñu faussé débat bi. mooy que ce marron la là ku bëgg lekk ku bëgg a bokk danga nga see bokk boo si bokkul bay tu n'existe pas voilà comment on divise le Sénégal jàpp jàpp mm-hmm. bi tey oui pas Sénégal toll na fa nga xam ni aujourd'hui la société civile mu ngi jóg baax na dama jàpp ne dafa sax yéex a jóg les gens nous diront vous savez lu nekk ak temps mais am na loo xam ne boo ko bàyyee muy dem di dem bis dina ñëw mu tëla donc li gën mooy ca ndorteel ba nga jóg araftu arrêté alerté ñu arrêté ko aujourd'hui on a laissé trop faire trop quand je regarde sanu yaay bi amee na Touré ngay xam ni yàlla am na mhm. bàjjen mu ngi laa nuyu ba baax ci ngay xam ni yàlla am na polil ma yaa ngi nii ma yaay bopp ci ngay xam ni yàlla am na koo xam ni y'a deux y'a trois y'a deux trois mois quatre mois y'a deux ou mois quatre mois mu ngi woon ci pouvoir bi lu lu opposition bi teg mu génn conférence de presse contre leen yàlla def tey mu taxaw nii jàkkaarloog nguur gi nga xam ne yàlla am na loolu rek war na doy junju ci nguur gi ak ni mu àndal. pour le peuple wala sax si ay euh, propre intérêt parce que des fois aussi c' est là où se trouve euh, le problème des fois engagement politicien yi tamit euh, pas. alpha ou alfa alpha ou bêta du engagement yoo xam ne day fay dem si intérêt général. da ngay ah, ou bêta Ah. le combat il reste un combat de principe. Uh-huh. dans le sens positif comme dans le sens négatif. xulil. Mm-hmm. addition ba baax. tey jii nii sanu yaay bi dem na ba gis ne yoon ba mu nekkoon baaxut. pour intérêt am la du intérêt am. sur le principe parce que amul poste aussi. oui je dis jàpp euh, ça m'intéresse pas sur le principe euh, aussi par euh, ça xam nga lu uh-huh. sur le principe. Mm-hmm. mooy waxoon na fi mbirub troisième mandat génnaat na wax ko point barre. loolu nag mooy débat bi le débat c'est pas oui euh, Aminata Touré bi ngeen di déglu tey jii nii pourtant maak moom ba ñu nekkee def nañ nag ça ne nous intéresse pas. xam nga c'est juste être lucide. par non non la lucidité c'est aujourd'hui de parler du principe sacro-saint. Mm. qui est que troisième mandat warut a am c'est qu'importe ki kaa wax mais l'essentiel wax na ko Moussa Sy ba ñu nekkee assemblée nationale di xeex mbiru euh, vingt cinq euh, nu mu l'histoire de vice-président et de li président Abdoulaye bëggoon def 25 pour cent de Sénégalais. ticket bi le ticket et autres. waaw nu mu ah. tuddati quart euh, quart votant xaw ma lan la. Hmm. bloquant ah, xaw ma votant lan la lan la Moussa si def il était avec le parti démocratique sénégalais. Mhm. jamono boobu sénégalais dañ leen mere mais il a tenu un discours fort wax ak ay ñoñam. Mhm. génn dem yoonam. Maître El Hadj Diouf def la même chose ak ñeneen ak ñeneen du question diw fii la nekkoon ou pas sanu maam Seydina Omar. bii nga xam ni xalifu Seydina Muhammad la woon mhm. sallallahu alayhi wa sallam nekk kàngam ci diine gi ci sahaaba yi gën a mag xulil dafa rey ay nit rey rey rey rey rey ba doyal xulil mu jënteel ba yàlla def muy jullit akkan loolu la ñu jugé la mu doon def ah sunu boroom a xam waaye li wóor ba wóor mooy fi mu nekk nii mu ngi ànd ak ñun di xeex na xeex on parce que xeex bi dañ ko war a gañe xeex bi lan la mooy principe yi mooy troisième mandat warut am mooy leneen ak leneen ci lu jëm ci justice bu ñu taxawee sanu yaay bi am na turé daal ne lii d'accord ci te ñun Sénégal ay d'accord ci on respectera ça point barre loolu ñu intéressé mais lii société civile def baax na te waru taxaw dafa war continuer d'accord balaa ñuy génnee ci rassemblement société civile bi euh, Pa Assane amoon na keroog benn incident boo xam ne ñu bëri euh, jàpp ne woon carrément moo euh, yàq boobu les rencontres avec suñu.